Euh, Babacar Diop. Voilà, aujourd'hui, euh, DTT euh, Comme vous le savez, ça, ça en fait compléter un peu un certain nombre d'activités qu'elle avait initiées euh, pendant cette période-ci de l'année. Euh, malheureusement, aujourd'hui, elle est absente pour des raisons de voyage, de déplacement professionnel. Euh, mais cela s'intègre parfaitement dans cette euh, vision qu'elle a de contribuer au développement d'abord de sa cité et plus tard de sa, de sa ville tout entière. Comme vous le savez, il y a beaucoup de, de vertus hein, euh, concernant la, la, la plantation d'arbres. Euh, il y a des vertus au niveau médicinal, il y a des vertus au niveau de l'environnement. Un célèbre penseur disait que l'arbre est le nettoyeur de l'atmosphère, c'est euh, que l'arbre également produit un peu, constitue un puits carbone. On sait également, et ça ce sont des études assez sérieuses, très poussées, qui l'ont démontré que même l'asphalte que vous voyez euh, a une durée de vie beaucoup plus longue selon qu'elle est protégée par des arbres ou pas. Donc c'est au nom de tout ça qu'elle a décidé de contribuer euh, à cette euh, journée, de mener cette journée de reboisement dans son quartier. S'y ajoute que nous avons eu, pendant les périodes de sensibilisation, un certain nombre de demandes émanant des populations qui souhaiteraient avoir des flancs fruitiers. Donc, euh, on va joindre, on va dire, à la fois l'utile et l'agréable. Donc, nous avons quelques plans de fruitiers qui sont prévus dans les concessions familiales. Donc voilà, et ça c'est première parce que bon, ce qui est plus simple, c'est peut-être ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de prendre des arbres, des plans des eaux et forêts, et j'en profite pour les remercier de leur disponibilité et de leur assistance et présence. Mais c'est plus difficile d'en assurer à la fois le suivi, l'entretien et surtout la protection. Parce que comme vous le savez, ce sont des, des plans qui sont encore vulnérables, qu'il faut protéger, et nous allons veiller plus tard, pendant toute à assurer ce suivi. Et ultimement, ce que nous pensons, c'est que si cette opération, qui est notre première du genre, fonctionne comme nous le souhaitons, nous souhaitons poursuivre au-delà et toucher d'autres quartiers de la ville euh, jusqu'à ce que, en tout cas, on pense que l'essentiel est fait pour que les Thiessois soient définitivement protégés par rapport à certaines vicissitudes de l'environnement. Quels les moyens comme, comme j'ai dit, ce sont des moyens humains d'abord. Donc des euh, les personnes se sont regroupées plusieurs fois, les personnes se sont déplacées, ont sensibilisé et c'est le moyen le plus Le reste, les plans, comme vous le voyez, euh, les plans forestiers nous ont été gracieusement offerts par le service des eaux et forêts. Et nous remercions l'inspecteur Dien et son équipe, qui a également mis à notre disposition une équipe technique composée de techniciens pour appuyer également les populations qui se sont mobilisées pour cela, de façon à apporter une touche un peu plus technique. Sinon, c'est principalement ces ressources-là. Il n'y a pas d'autres types de ressources qui, pour l'instant, sont nécessaires. Il y a bien sûr il y a des gabions que nous allons acquérir aussi pour la protection des, des, des jeunes plants, surtout ceux qui sont dans les axes routiers qui sont impersonnels, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les concessions familiales ou juste les, devant les, les concessions familiales. Alors, au total, nous avons euh, mobilisé 1900 plants euh, au total, composés de différentes espèces. Comme j'ai dit tout à l'heure, le khay, le khaya sénégalensis, le nîmes, Azadiracta indica. Ensuite, il y a le terminalia, le euh, C'est principalement ça. Et les, fruitiers, il y a des manguiers et des citronniers. Nous avons aussi quelques moringas de nep-nep, euh, parce qu'il y a des, des, gens qui nous ont demandé ça. Donc, gros, grosso modo, c'est ça. Les relations qui lient les Tchikendiaï euh, aux imams, notamment il y a le président des imams de la région de Thiès qui est là, Imam Asparon C'est ça. Eh bien, vous savez, nous et nous souhaitons entretenir ce type de rapport. Déjà, ce sont des rapports séculaires que nous avons avec eux. la plupart d'entre nous, nous avons déjà ce type de relation-là bien avant qu'on se trouve en politique. Alors, et il est de coutume que dans ce genre d'opération-là, que nous commençons d'abord par des prières. Et c'est en ce sens-là que euh, nous les avons invités et qu'ils se sont mobilisés. Parce que comme vous le savez, l'arbre n'a pas que les vertus qu'on lui prête. Dans la religion, surtout musulmane que je connais plus, euh, euh, il y a beaucoup de références à la plantation d'arbres. Dès les premiers, Donc Adam et Ève, c'est toute l'histoire qui est reliée à, à, ça. Ensuite, dans, les, dans beaucoup de citations, dans beaucoup de versets, dans beaucoup de hadiths, euh, on parle de ça. On dit aussi que l'arbre fait partie des choses que, que, que, nous, dont les vertus et dont les bienfaits nous suivent même au-delà. Et c'est au nom de tout cela que nous les avons conviés pour nous assister et prier pour que cette opération-là se déroule dans les meilleures conditions possibles et que euh, aussi elle-même, en tant que politique, en tant que politicienne, elle puisse être euh, assistée et puis qu'elle puisse être accompagnée de la grâce de Dieu à tout moment et à tout instant. Les perspectives de continuer un peu à... Parce que comme vous le savez, euh, elle est en, en appui, en soutien au président de la République. Et cette perspective, c'est de continuer dans cette perspective-là. Donc c'est de continuer dans la perspective de l'accompagner dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui est un peu son cadre de référence au plan macro, mais également de contribuer au plan local euh, dans le cadre de la décentralisation, notamment dans son acte 3, à la mise en œuvre de l'ensemble des activités qui pourront contribuer au développement des cités, au développement des individus qui sont dans ces cités-là et à, à, à l'émergence d'un cadre de vie où il fait bon vivre où il fait, euh, où ils vont vivre de façon globale, mais où il faut, il, on peut vivre sainement. C'est un peu ça qui sont ses, perspectives. Et bien entendu, dans le cadre de son parti, c'est également de contribuer à la massification par la mobilisation du maximum de militants possible. Et ça, c'est l'objet même des, des, des, des, politiques. Donc voilà. Diop, Mouhamadou tey euh, Ndeye Ndiaye mhm. rek ci ay rek ci Ndeye Tické macha allah ñoo na fi beneen yoon def fi ay def ay euh, brouette ay râteau macha allah tey mu indiwaat lii dañu koy gërëm sant ko. Euh, garab dafa am njariñ doy na rek asulaay mu ne buñu toon ba alaxira jot ba tey la alaxira malaaka ëf na bufla bi ñëpp war a dee ngel garab dimbali ko balaa ngay dee loolu rek wane na ni garab lu am solo la àdduna baa ngi tukki nit bu baa dem nga garab mu ne dañ ko jëmba soo ko de loolu day wane garab lu am njariñ garab boo ko jëmbatee bu dee lu am meññ la ku ca lekk am nga tuyaaba picc bu ca lekk am nga tuyaaba ku ca kerlu am nga tuyaaba ku ca faju am nga tuyaaba kon ñëw fii def ay garab jëmbat ko loolu dañ koy ci encouragé bu baax a baax a baax leen ci gërëm leen ci sant di ñaan nag waa koñ bi Euh, ñu continuer di ko arrosé toppatoo ko ba gars yi mel àgg fu mu bëgg ñu àgg fa incha allah. taxawaayu Ndeye Tické Ndiaye te bu mu defee rentrée fii ci biir euh, fi nga xam ne dëkk muy si Ousmane Ngom euh, précisément bi naka ngeen ko jàngate yéen en tant que diine yi nga xamante ne fekk ngeen fi jamono yu bëri ci wàllu politique ak yu mel. alxuraan dafa ñu ni wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbihi walladi xabusa lahu yankidaa suuf su naat. boo fa jiwee lu bee a fay sax nday tikkee papaam yaayam koñ bi fii jàkka ji gox bi ni mu doole jëpp taxaw kanam bu di kaatee dugg politique bi li taxawee gox bi ak waa gox gox bi loolu dañ ko ciy gërëm di ko sant bu baax a baax di ko jàppale nag ndax dëkk ci ab koñ fa laa dëkk fa laa guddoo amul solo fa dëkk mais fa laa tekki fa defar ñu nga nag macha allah koñ njaay bari na ñu macha allah dëkk bi indi ay rato indi ay brouette indi ay pelle jëmbal garab yi ñëw ci ASC bi dafay mel tournoi de football indi ay ceeb jox ko waa koñ bi loolu daal vraiment ku ci bëggul rek da ngay xaw a soxor di gis ci yi am na ñu fi jaar nag def nañ fi gaa lu ñu fi def waaye gaa tey daal moom moom mooy xew tey daal lii moom wax dëgg yàlla rëy la am na ñu fi ñu ko a jaar def nañ seen seen seen kam ci la kattan mais daal moom bu ñu tey vraiment baat na de corps bi. ne jigéen nga sa jëkkër taxawal la taxaw nga kon taxawaay bi mat na sëkk bi nga xamee ni recevoir nga ñu bu baax a baax a baax ndax yaa ñu indi ci sa oto ak euh, kanam gu tàlli fa tabaarakallaahu nga dalal ñu dikk euh, ñu fekk fi tam ñoo xamee ni fa tabaarakallaahu su ma yëgoon ne ñoom ñu ngi fi sax ma ma ma doyloo leen wax dëgg yàlla sëriñ Abdou Khadir li mii su ma yëgoon ne mu ngi fi wala Moussa Mballo Mële wala sëriñ ture sëriñ Ba ñii doy nañ fu nekk su ma yëgoon ne ñoom ñu ngi fi incha allahu ndax maa ngi maa muxtaar mi ñoo ànd ñëw ak dem waaw kon ñu ngi kontaan bu baax lii nag jullit buñ ci invité wul it war nga ca ñëw ndax yàlla daf ko euh, tëkkale nii ak euh, kàddoom te kàddu yàlla dafa foor kàddu yàlla dafa foor kàddu yàlla dafa foor kàddu nit tam dafa foor waaw mu ne kalimatun ba ka shajaratin tayiba waaw kalimatun tayiba mu ne wax ju teey ju baax wala laa ilaha illa wax wala alquran waxu yàlla mu ngi mel ni rekk eh, eh, garab waaw waaw shajaratun tayiba waaw kalimatuñ tayiba ka shajaratin tayiba mu ngi mel ni rek eh, garab goo xamee ne dafa meññ te baax te garab tout le temps day baax su indiwul meññent indi euh, ker indi féex ñu cay féexlu sudul loolu ñu cay dagg di ca def ay garab di def téere xasu xayak xasu nebak yu demee noonu yooyu yëpp day faj te ci garab la jóge ah yi ci ëpp yi ci ëpp ci garab la jóge du dëgg ah, su ko defee tabaarkalla garab dafa am solo lool ci àdduna dafa am solo lool ci àdduna puisque yiñ fi jëkk indi ci àdduna garab la puisque dañoo préparer àdduna ba pare samp samp ci ay samp ci ay garab ba pare nag soog a indi nit soog a indi yonent yàlla aadama mu ñëw waaw muy lekk ci meññent mi di kii ah, di lekk ci yàpp yi fa tabaarakallaahu kon képp koo xamee ne yaa ngi jëmbat garab garab yaa ngi jëmbat nit yaa ngi jëmbët nit waaw képp ku rey garab yaa ngi rey nit waaw ndaxte dañ naan agriculture ak commerce amul lu ko gën a am solo ci réew te agriculture garab la mu ngoog te ku leen rey rey nga àdduna yëpp man xatala nafsan fa ka annama xatala naasa jamian fa man ahyaaha fa ka annama ahya naasa jamiaa yàlla ko wax kon képp ku rey garab rey nga nit képp ku dundal garab dundal nga nit te ku dundal nit ah euh, ba jang cay am jalay xaar kenn xamul nu mu toll kon soxna Tike mi nga xamee ne dafa taxaw pour def reboisement bii nga xamee ne ci lañu jublu yal na yal na ko yàlla wuyu yal na ko yàlla euh, dégg yàlla sax dana ko dégg ndax ku nekk bëggal jàmm nit ñi yàlla bëggal la jàmm waaw te lii yëpp jàmm rekk la waaw ñu ñaantam yàlla def jàmm ci gouvernement bi gouvernement euh, alxaaji Macky Sall président yàlla defal ko jàmm ba fi mu bëggee jëme réew mi yàlla yeggale ko fi ci jàmm xam naa soxna si nag mu ngi ci ndax mi ngi koy jàppale nii yàlla na ko yàlla ja eh, yàlla na ko yàlla dimbali ba mu yàgg koo jàppale bi jaahi rasulillah ak ñii nga xamee ne tam dañoo ñëw ngir moom ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm te xam ne ci lu baax rek lañu ñëw